te bir na ma man wóor na ma ni natt yooyu ñu ko teg mu dëgër ku mu daloon ci ñun ba muy tuul nga dellu ginnaaw natt yooyu ñu ko teg te yàlla boolewu ko keneen mu jóge ci biti waaye bàyyi di ko jur ak yaay di ko ak ay grand frère ñoom ñoo ko teg natt boo xamante ni wallahi bët mën ta gis loolu natt boobu ñu ko teg xel mënu ko xalaat natt boobu ñu ko teg man jàpp may nit di nga jur nit attan koo teg fitna bu toll noonu te fitna boobu ngir lan la diine dong dong moom moo tax ndaw si mos na fitna yoo xamante ni wallahi ladi laa ilaha gayru fitna yi yaay su ma yemayoon démb am na ko fitna yi sahaaba yi daloon démb la daloon ñoom Ammaar ak ñoom Suhayb loolu dal na ko mbokk yi lan moo teg ndaw soosu natt bii lan moo ko teg natt bii buñ ko laajoon bu ñu waxee li tax teg ko natt boobu kenn ku nekk ci ñun di nga dellu ginnaaw foog ni kii jàng natt bu ana lan moo tax ñu teg ko fitna yooyu muuru jël moo fa teg ci boppam ne raditu billaahi rabba gëm naa yàlla nangu naa yàlla jéggal naa yàlla sa lay di jullit sa bàyyi di jullit sa famille loo xamante te wallaahi loolu mu ko teg man gëm naa ni mucc ci ba nii mu def àllarba bi passé la génn àdduna yàlla ko yàlla yërëm mbokk yi ana jullit tey ana jullit tey suñuy woote woon jullit nga mën a téye sa doom di ko fitnaal ngir li mu ne damay def li ma yàlla sant mu ngay kam sante yàlla mi santaane julli santaane woor santaane joxe alaka digle ay jënn digle safara moo santaane mu ngay moom moo ñu sant yi mu waaye tey kilifa diine yu bëri waru nañu war nañu nit ñi ndax nañu waajur yu bëri ci ay muuraay tey suñuy waajur yi ñu bëri tey bu ñu la gisee nga muuru ñu bañ la bañ bu raw ni ñu war a bañ a iblis gis keneen muy sol fiso di def yaramu nee di bàyyi di ànd ak góor nga bëgg ko comme dañu waroon bëgg yàlla mbokk yi ana maanu ana maanu ana ragal yàlla ana maanu ana ragal yàlla mbokk yi xanaa xamuñu ne muuraay allah subhanahu wa taala ba moo ko santaane nañu jàngat suurat ahzab nañu ko jàngat fekk nañu borom bi wax borom bi wax nit war na jëflat ba ko nit bàyyi wax yàlla subhanahu wa taala nee na sëriñam moom moo ko ni xale yi muur léegi sëriñam noonu la ko bàyyi sëriñam noonu la ko mujj jamono xale yi ñëw di muur ñooy fitnaal xeet yóbbu leen safara xoola ma lii bii bii couleur couleur ci bon gii te kaw na moo ko wax man naa ne waxu ko te dinaa leen waxal la ko ko wax incha allah borom bi ñu ngi ñuy jàngal yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa wax de waxuma ñeneen yéen ñi gëm yàlla laa wax ni lu ma santaane def leen lu ma tere bàyyi leen yalla ni muy tan naale muuraay fu mu ko tàmbalee est ce que ci benn benn suñu la ko tàmbalee ci yonent bi la ko tàmbalee nee na ko yaay roy kaay bi yow la ñu war a roy yow laay adressé mbir ñi du doy nee na adressé ba yonent bi ñi yaa ayuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisaai lmuminina yudnina alayhinna min jalabibihin dalika adna an yurafna fala yuqin yow yonent bi mu ne ko naan waxal say jabar ña nga xam ne yaa leen takk ñu nekk sa suufu kilifteef wax leen waxal doom yi nga jur nga nekk si ni bàyyi te yow nga teg yàlla dina ko laaj wax leen waaye jigéen ñi jullit ñi woo leen nga wax leen loo leen di wax ñu muur seen bopp yi nañu jël ay morso teg ko seen bopp yi ba kenn du gis seen di nañu muur la ko yàlla santaane lii a amru ilaahi ndigle bu bàyyi koo ci yàlla borom bi subhanahu wa taala ci wax ko ci suuratu ihzab mais mu ñëw ba ci suuratu nuur détaché ne nii nii lañ koy defee nii nii lañ ko war a defee yaay Aysa mi ngi ñuy nettali waxtamarna biha lan la ci njëkkee jazallahu nisaa al muhajirati awwal yàlla yàlla fay jigéenu saxaaba yi démb ñu ne ko lan moo ne bi allah wàcce aaya bi ne jigéen ñi nañu teg seen muuraay te gën ci su weer bu wàcc mu ne jigéen ñu ko déggoon nekk ca tool yi jëm mu muuraay amu ko jigéen ñi ko déggoon nekk ci àllam jigéen ñi ko déggoon defoon bopp leen te gëmoon yàlla gëm yàlla sax bi ñu déggee aaya bi wàcc na pour ñu bugg koo appliqué xaaruñ ñu bañ ñu dem kër ga ndax ragal nañu dee ci yoon bi te ku ci dee dee yëpp ndax dëgg wax la lan lañ def dañoo jël seen i sër xar ko dagg seen i sër teg seen muuraay li des ci seen yaram di génn te xoolal ma ñaari confusion yooyu islam bu la dee muurul dafa bëgg say ra yëpp muur mais bu ñu fa jàngatee lan lañ fay gis mooy sahaaba du dégg digleel yàlla lu wuyu na ñu dagg seen i sët seen i dànk di feeñ ñu muur seen bopp yàlla leen yàlla faj mbokk yi lii di santaane yàlla di santaane borom bi subhanahu wa taala ndaw soo xam ni gëm na yàlla te ndaw si buñ la nettalee histoire démb démb meloon na ni jigéen ñi bàyyi ndaw na ni jigéen ñi mais ndaw ko def dàq tey ñu ni léegi muur bàyyi na ko doo muur na ko dangaa muur man muur lii ngay wax nii jaar naa ci mais gis naa ne du njëriñ li ma gis muy njëriñ mooy dinaa muur bàyyi ji génn ko kër gi 15 jours génn kër 15 jours doyoon ci loolu mu dem jëliwaat ko xale bi ñëwaat ana lañ lañ def papa ji moo génn ci ne mag ñi dóor leen ba mu dee la dindi mu raay journée bi yëpp mag ñi lañ ko yàlla dóor di ko dóor di ko dóor amul ci loolu papaam mel guddi gi dem loué Sénégal musique Sénégal musique la loué woo gars yi ñu xumbal ci buntu kër gi mu ne mag yi nañu ko génn mu fekk ma nangam. jaay ko doom nañ ko génne mu fekk mbaama nangam mu bàyyi nga ñu ñu diri ko ba ci ëtt bi ba ci digg penc mi ñuy fekkee ko fekk ba ñu doon seetaan bu ma sax ñoo daw ñu parce que xam mu ma wàññi ngi julli yaa ngi dem jàkka yaa ngi woor yaakaar nga yàlla mu jaral la nga fay dix mille francs bi kon yemul ci loolu ana nan lañ ko def dañoo xëy suba teel yàlla mi ma tiim xam nañu ful na lañu koy ne ko dëgg mu ne ko baale dugal na ci mu bañ ñu téye loxo yi teg ko ci kuré bi muy lakk ba loxo yi tem wallaahi la bii lakk na xëy mu ba loxo yi tem lakk ko ba loxo yi fu ñu mujj ah papaam dem wax ni ñun ñoo ko jubal ci ram ñun ñu mën na dëgg ko ñu daal foo dem ak leen ñu woo ñu ñu ñëw xana lan lañu wax pourquoi yéen ay dix te xale bi am na dix neuf ans commissaire bi ko doon wax lañ lañ ko dañ ko ne hee eh kii yoon na mooy ne xam inspecteur bi gëmul yàlla jaaxal moom moo ñu wax ne yéen yéen a mais lu ñu wax comme yow kii tey bu fekkoon cagal di nga ko bàyyi mu cagatu parce que am nañu fi cagatu seen i bàyyi bay ngeen di leen am nañu dix-huit ans lañu cagatu am na droit kii majeur la am na droit ci jël kii neem gëm ko bàyyi def ko ne yéen ngeen moom ci ànd nekk papa ji daf koo neexal ci suuf daf ko neexal ci suuf ah, nga gëm yàlla moo tax nga jënd doom lakk ko ba la ko wax wax lii lii lii ragal yàlla xale bi dee ba ci démb mu ngi jaay gëm yàlla wax na ci te mu fekk wallaahi ay fenn kecc gëmu ci dara ndax bu gëmul loolu day ci doomam bu fi si day ko xam xale bi fi mu ne nii lan lan moo koy kenn xam kenn xam lan gëm yàlla doo moom la ko bëri. wala ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi te démb da nga koy nit dañu leen dugal lu dul gëm yàlla te bàyyi leen ci sëñ ay jigéen ñoo xamante ne ñu ngi entre ay góor di di di lëng di mooy yàlla nga bàyyi leen ci kër gi kii la lay mën moo tax non ko teg ko fit na boo xam ne kon yàggul yaa benn na la woon dana papaam lu nekk mu dugg moo ko fi def ba mu ñëw dund ci sunna papaam ba dugg ne ko di nga bàyyi li lay dund lii lii lay ibaatu la nangam nangam fitnaa nit ñi àll bi yëpp pour la bàyyi mais lan la ko doom jox la ko bàyyi bu ma fontoo démb bi may agressé yaa ngi sax pour ma baax ma ñëw ni damay gëm yàlla nga dama déedéet su ma bàyyee lii agressé yow laa njëkk a nangam solo bon papa ci doo ko wane kon kon kon taw xoola ma lii yow nan nan la agressé ak ibaadu solo mu ne dama dem laa kër yëpp mu ne ko lu mu bon bon ibaadu ko agressé léegi kay tolloo ne agressé ak ibaadu tollale agressé ak gëm yàlla mais ana njub ana dëgg tey te lii bu leer ñu bëri ci suñuy wax tey bu leer ñu bëri parce que buñ jëlee bu muur ñu daw day gaaf ma ne mbokk yi ku gaaf teñ ñu teñ la ku ko gaaful ñu teñ la teñ moom rek mënoo ci dara tey ku leer nañu bu yàggul maa ngi dégg benn sëriñ di wa naan benn kilifa diine nee na xale yu mujj jamono bi bu ñu ñëwee dañuy yore diine koo xam ne yéen yoru leen ko woon lan ngeen déglu gars yi ne waaw mu ne ay naa fekk lañ safara lañ jëm xoolal ma lu bon lii xoolal ma lu bon lii ci dalee lañ ko def fang ay naa fekk lañ jëm dee safara lañ jëm mel ni yow yaa moom safara te wallaahi kañ la moo ko wax waxutloo man liir naa ay waxam ca saxaabatu tulaab man ko wax ci saxaabatu tulaab demal te lan la doon wax doomam bu jigéen la doon wax loolu lu mu doon wax doomam bu jigéen ku weddi dama ci saada ci turam nga dem ci juróom benneelu a ba dem ci trente-neuvième xasiida ba ma nga fay wax ni lan la fay wax ma nga fay tàgg doomam ci ne jigéen dafa war a muur te ñun gis nañu kooku ay doomam ñëpp dañuy muur lan la wax doomam walan tanaayi tasturiinal badana yow sama doom yow sama doom mu ne ko naam mu ne ko doo dañ mukk mukk di muur sa yaram di def li la yàlla sant xatta tasturi jismaka bi taxammul yaa Zeynab ne yow sama doom munoo muus sa yaram lu dul nga matal ko sëkk yàlla gëm xoolal ma kooku wax loolu yow nga ne nee na nit ñi xale yi ñoom muurul yëpp yow nga yàq àdduna bu fekkee nga yàq àdduna àdduna dina yàqu wallaahi du ñu lee ñuy di muur xale bu jigéen bi Mariam la tudd ñaata nit a ñëw bëgg ko jabar papaam bañ papaam bañ nañu ko ko nan la def dem seeti koo xamante ne papa ji wóor na ko ni kii ab bandi la waaye yoo xam ne dafa ubbi benn baar ci géej waay papaam dem may dem may ko ko pour rek bañ bi xale la jox kooku boppam ca la ñu nekk ca la ñu nekk waaji di ko bi ëmb ba tijjee ma maa ngi nar a jàngal fii daal fi ñu ne kaay ñu dem ñaanal xale bi ma xëy ci ba tey ñu ne ma dégg kan moo ko rey xaw ma lu yàlla dogal a def mais yii ci la bokk sabab yi ci la bokk ñu def bëgg rey nit ñi nag indi ay kaamil fu nañu jàng kaamil yaay di jooy baay di jooy naa fekku keneen dara gëmul ko ci dara gëmul ci lu ñuy jooy parce que bu ñu ko gëmoon du leen jaral ñu toog ne ko nii téye nit di ko taraxal taraxal bu bon bi dara taxul ñu ko taraxal lu dul gëm yàlla subhanahu wa taala bëgg baax dong yaay damay baax nga ne ko doom doo baax bàyyi dama bëgg baax nga ne ko doom doo baax ana jub ana dëgg ana baax mbokk yi xool leen yaay sumay la yaay sumay yaa ngi nii jigéen la ñoo xam ne moo njëkk a dee islam comme la waykat boo naan yaay ci may yéen mooy jigéen di njëkk a dee ngir jooy loo rasulillah cey li cey li yonent bi dafa fekk ñu koy mbugal ba ñu mag duub ñoo ko taal ci digg naaj ak jëkkëram amma yaasin ak doomam amma lan lañ leen di mbugalee wecc leen yonent bi saaga leen yonent bi su ma yédu xool ngur si ñu takk loxo ndeyjoor takk càmmoñ takk tànk yi ci gëléem takk tànku ndeyjoor bi ci càmmoñ jaaxal nag jaaxalal ko tiim ko xeex ne ko saagal muhammad baa ñu rey mu xool waa ne ko su ma naree taaga muhammad yow lay taaga ñu dàq ci leen mu jaar lay def bii jaar mu xel ci péyam noo ko xam démb na wallahi démb amoon na te day diine feeg yaa koy gëm lu mel noonu day am wallahi ak su nii dëggal dëggal dëggal bi la daan ñu ci wallahi yàlla la la yàlla yàlla doon na ma yàlla yërëm yàlla yàlla dafa àggal mu si kër mbokk yi tey lan la moo ñu indi fii tey ay nit ay nit ndax nit ñi pour lan la bëgg a lekk li ñuy lekk bëgg a lekk li ñuy yor teel sa doom di ko moyloo yàlla xanaa dafa jàngul li borom bi wax dafa jàngul wala tudiku awlaadakum ala borom bi nee na ay yéen ñi gëm yàlla laa tudiku fatayaatikum ala al-bighaa ay waay yéen bàyyi bu leen yóbbu seen doom bi bu ñu bëggee baax ku bëgg a baax loo ku bëgg a bon loo ki bëgg a bon la ñu waroon a defar mais kii bëgg a baax damay muur def li yàlla santaane nga di ko génn ci ay wis ne ko tey for force nga bon wallahi alquran yoo wax moom borom bi nee na wala tukrihu fatayaatikum ala al-bigaa in aradna tafakkura bu leen yóbbu seen doom yi jigéen ñi ci mbew dañoo bëgg a baax bu leen yóbbu ci mbay tey fu mu mujj lan doon def yëpp àdduna wu jeex la cay dëgg yàlla dina ko àtte la ci dul dëgg yàlla dina ko at wallahi yàlla mi ma tiim na moo tax mënu ma def di paas di ko ko jaar di ko ko jaar parce que bu réussir woon man ci kese bi laay def bu réussir woon ci kese bi laay def man ak samay borom xoola ma ñuy bëgg baax bëgg baax rek nga ko doo baax da ngay bon mbokk yi yonent baa ngi wax ni yéen ñi gëm yàlla kaay leen balaa ma ñëw sax ci loolu benn kilifa diine ñu ngi ñuy wax loolu am na jigéen joo xamante ni muuraayam la sànni woon dem ci bërëb boo xamante ne dañ ko doon jaay sàngara mag ma lu mu ko wax laa tashtahi dunya bi uxraa a man baa am nuuran bi dunya fa xayran a eh jàng bi adduna mi du fi jotee àllaaxira ku jaay leer ngir lëndëm di réccu ku jaay leer ngir lëndëm di réccu tey mag ñëpp leen dajalee wax nañ ci muuraay lan def ci alaaj maa rek lan ñu wax baaxidu bayna al-fatih rijaali wan nisaa kalaamun sidquhu mi ko ci Ibrahima bi soree leen nooy yi góor ak nooy yi ku jigéen ndax ñoom ñaar seeni wax bu ñu jegee ñaaroo am te ñooñu ñuy wax ñoom koo ci gis fotoom gis ma leen def mais koo ci gis fotoom dafa moom seen jigéen man dem seen imaam jaar gis naa fotoom waxuma la muuraay mais dara rabal la muuro rabal la teg ci kaw tey ñu ne gëm nañ ko du ñu def li ñuy def ñu ne gëm nañ ci mu du ñu def li ñuy def bala di nag nit ñi naan ñoom ñoo koy tere te terewuñ ko ma ni ñi koy جنود yi di daw ñoom ñoo إلا a مولاي أقول la ñu bàyyi الحمد لله رب العالمين hada wastaghfirullah والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد أيها الإخوة فتعالوا معي لنقف وقفات كي نرى فوائد الحجاب الشرعي إخوة الإيمان للحجاب الشرعي فوائد نذكر منها ما يلي مقيم ننجل الخوف مورا يندي فتجي يرتب عن وحيتكم يلا إن من ورائكم أياما صبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم قالوا يا رسول الله أو منهم قال بل منكم yonent bi ne saxaaba yi yéen a ngi toog metti la lool ñu ne ko waaw mu ne bis ngi ñëw dina gën a metti ñu ne ko lu tax yonent bi mu ne am na ñuy ñëw fitna yi ñuy dund ku ci mën a muñ dina am fay juróom fukki saxaaba ci yéen benn saxaaba ne ko ci ñun wala ci ñoom yonent bi ne ko ci yéen laa فولا صحابه لن يردوا مثالا لو انفق احدهم مثل احد ما بلغ مده ولا نصيبه كان في يوم كنت فرقه ولتو خير احد دو جوت تيكو صحابه تمباخ تيكو صحابه تمباخ نوكو جوت يرن بي نانا تي نيم تي ني دوند ني كو مانا مون سا دين غير يالا يالا فايلا يولو جوم تي صحابه بوكي ngay goor di dund ci kër bàyyi fitnaal la ngay jigéen di pour la dama bëgg baax mbokk yi xanaa ana ana bàyyi bàyyi dinaan baax xanaa dafa fàtte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mbokk yi baax yombut mbaax yombut yàlla ñu yàlla defal mbokk yi bu ñu xoolee muuraay bi di ajee ñu bëri benn bi mooy jigéen buy muur dina mucc ci église dina mucc ci bànd yi ana xale bu jigéen bi sol fii doy taxawal fii xale góor yaa ngi koy piis mais dafa muuru mel mu mel bu ñu ko ñeme ku muuru mel ne mel xale góor la lii nag kenn sant yàlla am doom yoo xam ne góor bu ko fekk jar na am doom joo xam ne du dem choléra jar na sant yàlla am doom joo xam ne du entré góor jar na sant ki am doom joo xam ne gëm yàlla la jar na sant yàlla ndax yow man yaa borom bi nee na waajur dina dem bay bëgg dugg àjjana doom ñëw borom bi ne waqifuhum innahum mas'uluun nañu taxaw bu taxawee ëllëg ne yow yàlla sama bàyyi ma tere woon lii bu bàyyam tubul musibaam maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla tub yàlla ko yàlla man ko tuub yàlla tuub parce que musiba bii mu def nii wallahi safara moo koy ko yàlla may tuub mbokk yi bokk na ci njëriñu muuraay jigéen bu muuroo day mucc ci seytaan ak yu demee ñaareel bi yonent baa ngi wax ne maa taraktu ba'dii ba'dii fitnatan hiya adarra ala rijaali mina nisaa sama xeet bàyyiwuma fi fitna bu gën a fitnaan sama góor ñi ci ci ci jigéen ñu jëm dara ala fi ñu romb jigéen ñi nañ génn xoole ñiy jaay bañ na ko ba tey promoteur yi ñuy jaay ñiy taxaw nii di jox ay promoteur yu kenn amul jigéen lan la ñuy jël duñ jël góor parce que xam ne góor ñi dëgg lay baxal góor yow boo dee jaay doo jaral mais jigéen bu jaay ñu ñëw jënd la ñuy la nga jaay la ñuy jënd de la nga yor la ñu bëgg li nga yor la ñu bëgg épicerie yi épicerie yi magasin yi bitig yu mag yi jigéen te dañ lay proposé il faut nga soppal il faut nga sol piso il faut nga sol jëpp il faut dafa jàng secrétariat ba yàlla dimbale ko mu ay lool at mi ca ko sim ñu def benn concours mu at mi jiitu directeur bi recevoir bi mu ñëw xool ko mu ne ko non non bon lii daa xam ne ci yoon parce que boo toogee fii gars yi yow dañuy daw subhanallah ay jullit Sénégal def jullit la te 99 pour cent jullit ni yow jàngam ko mu nga fee toog nga ñu doo ko wallahi bëri nit ñoo xam ne seen bureau yi la muy yaatu yaatu du gëm yàlla canapé yu ngand yooyu bon rek bon rek secrétaire bu nangoo bon ñu bonal la fay la boo bëggee baax ñu dàq la ñaar yoon la ñu gis phénomène yooyu parce que xam na ki muur mu ñor sama loolu bu mu tax benn jigéen la ci kuy muuru bu ma tax a découragé parce que benn ngëm yàlla bi mënoo ko am mukk mukk dëgg ñaareel bi am na benn franc-maçon lan ngay wax دفو يا معشر الفرماسيون ننا من يجب علينا ان نكتب المرأة فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالمراد وتبدد جيش المنتصرين للدين. ننا يجني خير قبل أن بلد صنع لنموت جيجن بس بنو كان يجيجن يجيجن يجيجن والله كان يجيجن كان يجيجن سميت لا يجيجن تولى الباخر يعني دين كل باخر féministes yi taxaw nañ ci ay jullit lañ ñëpp a ngi taxaw di xeex benn ñaari jabar ñee nga taxaw fee te ñay xeex ñaari jabar la ñuy daal da ngay jigéen mu ñëw indi la daa nga dee wala xeex nañ leen ci xeex bu ne tey lan la ñu wax tey da nga gis association yeewu yeewi ñoom nee na dañoo yeewu yeewi jigéen ñi wallahi yeewu yeewe la parce que ñoom ñooy daje di dem ay jigéen di ñëw di dem états-unis di ñëw ay mbindaan la ñuy yeew ci kër ga xanaa ñoom duñu jigéen da ngeen da ngeen di yeewu di yeewi jigéen ñi yeewi leen mbindaan yi mais nga yeewu mbindaan fetal dem doxe sa ngoon ne da ngay xeexal jigéen xeexal ñu jigéen financé nañu leen suñu yàpp defe na financement ngir yàpp jigéen ñi tey loo jaay loo jigéen mu jàpp loo jaay loo góor du jàpp mbokk yi tey jigéen ñu génn ngeen def yaramu neen def tànku neen amul benn waajur bu yem ci loolu taxoon neex mënta nekk bu nekkee xabbatu xardal min al iman mi sa xol bu la neexee tey nga toog ci sa kër sa lu bopp génn mu neex a lool keneen muur na ko yàlla santaane nga ne ci seytaane bii kii ni mu nangame ki mu nangame wallahi seytaane mooy wax ci yow te moo ne ci yow te boo tuubul wallahi safara gi dem parce que santaane yàlla jullit war koo bañ borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla yéen kenn ci yéen ma àtte nga bañ yàlla du àtte ñu bañ yàlla moo sant mu waay ndaw lu ko nangu moom mag mu ko nangoo yow ku ko bañ yaa bañ mais yàlla li mu digle dëggu na ci te ñamal ko mbokk yi jigéen bu muuroo am karaare ci kanam yàlla am ko am ko ci ñun ñu gën a léeg-léeg sax boo toogee jigéen da ngay dégg ñu naan ku muuru am jëkkër léegi parce que lan la xale yi góor la lamb bi sonal na leen jigéen ñoo xam ne génn doxi ñaari jigéen nga yor kër ñoo mën tamay kii ñoo ne damaa bëgg baax nga ne ko na baax pour lan mbokk yi alquran mi ngi ñuy jàngal nee na jigéen balaa jigéen ne mane na muuru na muuru comme ne ko yàlla mboolem nag koo dégg mu ne kilifa diine moo ko wax wallahi waxul dëgg waxul dëgg lii bu gëm yàlla amul kilifa diine bu jàng alquran te ku jàng alquran jàng lii xataa lax bari boo ko jàngee di nga fi wal mar'atu kulluha awra jàng loolu pourquoi nga ne jigéen ji mu dafa gàtt la ko gaaw la bëgg baax mais nag du dara jigéen ñi mu yéen jëmm amoon na luñ fi def rek amoon na jëmm ana ñaata góor benn jigéen ñi fii soriwul fii moom daal léegi la doon liggéey xëy na papam bàyyi na ci liggéey boobu rek uti benn liggéey papam na ko ci biti ba léegi ibaadu la moo tax nga ne doo laal mel ci biti génne doom te dox dina xamul doom bu jigéen amul jikka nga bàyyi ko mu nekk nga xoolal musiba bi bu ko fee daanee ko fi bu ñu ko yàqee ci àll bi bu ñu ko agressé bu ñu ko rayee nga foog ni yow nga responsabilité wàccul déedéet wàccul parce que la mu bëgg am na droit ci bëgg loolu la mu bañ am na droit ci bañ ko ko taxaay nga sànni ko fa leneen dal ko yow lay xaar tey am na ñun góor ñu bëri kenn du mer ngir sa jabar yu ñàkk muur déedéet moom kay na sol yu xat na sol yu bon man dama defee ni feebar mooy xol yow nan ngay nekkee góor sa jabar nga bëgg mu sol lu bon génn bon ñi di ko xool loolu yenn yi feebar la mënut a nekk ak mentalité bu normal nit bu normal non mënul nekk nga normal lool sa jabar sol lu bon nga bëgg ci yow da ngaa feebar dañ la war a faj feebar dong benn mbokk yi ci jàpp muuraay dafa am njëriñ mais lan la kii muuru war na bàyyi xel ne yàlla rek tax du pour ibaabu du pour kenn ibaabu kañ xew yàggul ne ko soxna si bu yeboo rek lañ nekk ci jàmm man jigéen mënatu la def lu ma réer ndax jàng jigéen ba jigéen ndaw si ne ko ah nijaay bul wax loolu ñun mënuloo ñoo xam a ñu xam mu a fexe ba yéen jigéen ngeen ma ndaw si ne ko ah nijaay yaa ko wax mu ne ma ne ko ah baax na ndaw si taat an yuuxu fële leen rek kon bi waa ko bépp daw ñëw ñu ne lan la lan la mu ne sama jëkkër nee na damay rey baa ji tëb ne waxul dëgg nit ñi coow coow nangam àtte ba arrangé bëgg dem ndaw si yuuxuwaat bi mu yuuxuwaatee ne ñëw leen génn nag àtte bi gaa yi ñëw bi ñu ñëwaatee jàpp jëkkër ji teg téye ko ndaw si ne yeewu leen ko lu ko may dina dem ñu yeew jëkkër ji jëkkër ji di birti birti ci laal bi ndaw si yuuxuwaat ne gaa yi ñëw leen dina ma rey nee na bu ngeen demee mu rey ma gaa yu ñëw bi ñu ñëwee mu ne dem leen gaa ñi dem jëkkër ji nekk ànd yow ko ci laal bi ndaw si dem ba ci àll ba euh, dem fekk fa ay neefare yu wow neefare mooy li mbaam yi di génne ak fas yi ndaw si dem foo ci ñetti doon bi ñëw ne ko gis nga lii mu ne naa mu ne ko tey moom ngay reere waaye dina ko wax ko dëgg ndaw si yuuxu wóor dina ma rey gaa yi ñëw bi ñëwee mu ne nee na naa ko defar foofu jëkkër ji naan waxuma ko waxuma ko. donc moomuñ ko tey am na ñu bëgg ñëw ci diine foog nañu ibaadu yi moom muuraay moomuñ ko muuraay amrun ilaahi mbir la bu bàyyi ko ci yàlla du aada naar du aada pël du aada eldo du aada muuraay du aada bal diine la du aada diine la rek diine la léeg-léeg boo xam ne naan man tey dafa sàngam laa bokk bu ma muuroo ñu ne ibaadu la ah moo la tege muur la lay xaar mbokk yi bokk nañu ci am ci muuraay la ngay mënu doon a fàtt say ram ba kenn du xool jigéen warul génn ñu mën a xàmme jëmm nit loolu boo ko defee yaa jaay sa yaa jaay sa kon muuraay la muuroo dafa war a yaatu dafa war a fatt dafa war a mag na nekk lu jot la ngay muuroo yow du jigéen na nekk loo xamante ni bu mu nekk taar ngir góor ñi ci ci yéem bu mu nekk taar na nekk ngir yàlla la ngay muuroo bu ci sotti rek ko lañ yonent bi nee na ayyama mraatin istaatarrat fa marrat ala qawmin yalidu riihaha fa innaha lariya bépp jigéen bu génn jël lañ ko lañ cuuraay gongo sotti ko feeram ngir mu xeeñ góor ñi nee na njaalookat la yonent bi di njaalookat laa sokka njaalookat la lan moo la xiin ci lañ ko lañ mu xeeñ góor ñi am nga jëkkër na ko xeeñ duggal fe nag mu xëy ne na taaru jigéen mi ngi ci ndox kese ci biti ci biir gën gi mu la neex ñàkk tey jigéen jigéen dafa leen góor beneen bi mooy la ñuy muunoo bu mu nekk yére tubaab bu mu nekk yére boo xamante ne mooy katu yàlla yee koy xool tey léeg-léeg léegi daje koo xam ne day muuru sol pàlloo jiin sol chemise muuru kooku daa daa muuru xamul luy muuru dafa mu sol pàlloo jiin sol chemise muuru sa jëmm yëpp ñu muur xam loolu du muuraay da ngay tolal sa bopp ci tàngoor xam nga lu lay xaar tàngooru jahannam quli naaru jahannam ashaddu harra yàlla buñu ko yàlla na yàlla mën nga yàlla noonu mbokk yi ay balaa bu denc àddina tey mboolem ñuy dund fitna yaa ngi seen kaw tey jii lan mooy suñu fitna tey bërëb boo dem boo yoree sikkim da fay toog da ngay wax ak sa mbokk na noo waxee sa sikkim dama ko nag xoola ma waykat bu bon lu mu way satalaat kurus kaalaat sikkim yaay booy bañu ko dama koo ragal yàlla ne bëgg naa ko sopp naa ko yonent ne bëgg naa ko sopp naa ko yow nga way ne da koo ragal di ko di ko defee nag comme li wax nga lu baax rek yaa ngi yàq ci sëy xale yi jigéen ñi lan la ñuy way fu ñu toll mon mais kenn jéemul tuub jéem a baax kon yàlla ñu yàlla dimbale ba ñu baax yàlla ñu yàlla def ay dëgg dëgg dëgg اللهم اهدنا واهد بنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا مؤمنين مسلمين خالصين تائبين عابدين فائزين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم مريم فاض برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغسلها بالماء والصلب والبرد كما ينقى ثوب الابيض من الدنس اللهم اجعلها من المؤمنين في الجنه اللهم اجعلها من المؤمنات في الجنه اللهم اجعل الجنه دارها اللهم اجعل الجنه مقرها اللهم اجعل الجنه بيتها اللهم اجعل الجنه منزلها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهد اباء مريم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقضي نور الاسلام في قلوبهما اللهم اقضي نور الاسلام في قلوبهما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 حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أبو وتناقو فاعتدلوا فتقي دونه نتاكي لا يجيني لكم تقي دونه تنكي عندما التقبيل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طووا وثلاثوا فاعتدلوا فصفي دونو نتانكي لا يجولي لكم صفي دونو تانكي لا Thank you.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 أشركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يحزنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يكفرون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت إنه سميع عليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون لكم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يعلمون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم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 قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العليم الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد <laughs>